dal leen ak jàmm Touba benn bay Fall bu ñak bakanam ak kaat yo xamne amna ay gaañu gaañu si jàmmarloo yu doxon diggante bay Fall ak ay sam jéye ji nak mu ngi guddi ke talata japp alarba le 8 novembre 2023 sa ko ñu daw si sa Touba si yëngu ñi amal nak yi manam jëm si sam warmaay Touba si la kenn si bay Fall rax ci bir ñu doon jaay cigarette ak yàmbaam laatee nag nañ muy génnaat ngir xamal ko moroomi Baay Faalam mu àndaloon bi ñu leen songee nag si la kenn si Samba Boy yooyu génne ak fetal daal di ko sox si kaw Moustapha Niang ba mu mucc ñàkk bakkanam mu nekk lu doy waar si jàmmarloo yooyu tam tamit soqe nañu si beneen kaaw Baay Faal bu am gaañu gaañu ak trois ñoo xam ne daal dóor nañ leen itam si wetu Samba yooyu ba ñu am ay gaañu gaañu ñoom ñëpp nag ña nga leen dawale fële sa hôpital bu mat la bu faw sëy ni buñu sukkandikoo nag si ay xibaar yéeg yéeg leen yéeg leen nañ ko takk der yi ñoom ñëpp daal di ñëw nag ngir delloo si ak dal fa mbir ma xawee ñoom nag daal di nañ ciy tijji ak enquête ngir gën a leeral mbir mi